waxuñu le grenier du Sénégal de le grenier du Sahel parce que ñom AOF la won AOF yeen ñep xam ngeen nak potentiel bi fi nek ci ceeb gi ci maraîchage bi soble tomate, tamaate pomme de terre beeg waye ci même les premières expérimentations ci blé bi nga xamné blé nga xam ne bi Sénégal di Sénégal ba léegi dañuy dem jéggaani ko pour mun a def farine defar mburu bi nga xam ne séeréer seeg pël gi suñ ko gisul duñu duñu duñu kontaan même blé boobu les premières expérimentation ñu koy bay léegi Sénégal fii la ci vallée du fleuve kon potentiel boobu kenn xamul nu mu toll mu doon foo xam ne yàlla may nañ ñu mën a bay noor ak nawet dans plusieurs zones du Sénégal ba léegi nawet rek lañ fa daan bay Dans ci programme nous ngeen ñu les autoroutes de l'eau autoroutes de l'eau permettent permettre partout au Sénégal bay le fleuve Gambie à travers euh, barrage de ñu fay def bay fii lac de guerre te fleuve Sénégal de l'alimenter. Et ak lépp li nga xam les ay ay ay ay identifié nañ ko ci Sénégal mën faa le ndox gudul jeex ces autoroutes de l'eau moo ñuy permettre noor ak nawet boo ko booleek nag engrais ju mat sëkk mooy suñu phosphate bële gars yi bëggoon tayle nga téye ko fii def ko engrais phosphorique def ko acide phosphorique transformé ko engrais gu doy sëkk buñ ko defee di si quelque année mbay mi dina dox a dox a dox ba dañuy bëgg a exporter duñu xam fuñ ko jëmee kon ci programme boobu fii dañu fay bëgg a def agropole ci code bi ndar ndar gaz bi ak lu jëm ci gaz bi ci Dagana ci Podor xam nañ capacité fa am ci restructurer l'agriculture par la qualité des semences wax nañ leen ni prochaine so vous lu melni gerté vous dootu semence semence certifiée

on va revitaliser et redynamiser tous ces périmètres De fois aux norme les meilleurs, mais accompagner avec un programme d'encadrement des agriculteurs les coopératives si on nous nommé un ministre spécialement chargé des coopératives agricoles parce que mbay on muy dox États-Unis da fay des coopératives agricoles yu am les banques, ba yor banque France nga dañuy wax ni euh, crédit agricole bi ngay dégg France à l'origine ba tey si sax baykat yi ñoo ko moom soo demee foofu da ngay gis matériel agricole bi intrant yi mais financement agricole agriculture bi même état bi day subventionné bu ñu béyee ba pare mu jënd récolte yi et mais même le financement par voie bancaire yu demee noonu ñoom ñoo ko téyel seen bopp loolu Mamadou Dia moko commencé au Sénégal motax la seule année bu ñu am une balance déficitaire ci production agricole bi moy 1961 sous Mamadou Dia mu organiser les agriculteurs am des des organes d'encadrement des organes de financement ainsi de suite waye biñ ko pexelee ba écarté ko ci la mbir mi yàqu ba tay ji kon lolu yëpp lu ñu réorganiser la mais Défi agropole parce que fi Ndar nga xamné la capitale naturelle nekkoon la première capitale du Sénégal mais de l'AOF Ndar ci suñu programme dañu bëgg mu une métropole d'équilibre moy l'une des grandes villes du Sénégal à côté de certain nombre de capitales mais Dagana Richard Toll ak Podor il faut que ce soit Nous ñu faire des capitales régionales métropole agropole bi faut que lay parce que foofu la mbay bi agropole bi ñu bëgg def fii ci zone boobu foofu lay nekk kon une vision par rapport à l'agriculture également di bay des chaînes de conservation parce que soble ak ak pomme de terre day yàqu fii suñu paree dem diko importer tamate gi day yaq fi fi diko transformer sax nañu aujourd'hui c'est ces unités industrielles mais collées à l'agropole avec les petites unités familiales de 1 hectare 2 hectares mais à côté agropole est encadrée. dañ koy encadrer ñew fekk ay suufu jambour yo xamné seeni nga ko ci anam yo xamné des centaines d'hectares lolu duñ ko c'est euh, agrobusiness est là mais il faut nous encadrer comme on cohabiter avec l'agriculture familiale parce que suñu système agriculture familiale la gën a méngool Si je ci lol ma wax touti nak ci tourisme xam nañu potentiel bi fi am aussi ci tourisme muy tourisme religieux bi parce que bo joggé alwar ba boy egg pal ci sama kër mam foyer religieux yi je nañ fi nit ñi xam ko programme tourisme religieux bi dama leeral nag parce que bi ñu waxee tourisme religieux ak Kolda ba tudd ay Medina Yoro Fula ñu def ay complexe yu mu yu mun a accueillir nit ñi dégg naa bi ñu fa jógee waa Borbale nga xam ne désinformation rek mooy seen politique dañ dem seeti kilifa diine yi naan leen wéy dañ fi bëgg a andi ay yoo xam ne nit ñi dañuy ñëw di fi fooye ñun dañu wax tourisme religieux boo demee Medina Madinatul Munawara tourisme religieux nga fay fekk hôtel yi gën a rafet ci àdduna fa nga koy fekk boo demee Makka moom nga fay fekk hôtel yi gën a rafet ci àdduna ma koy fekk est-ce que nit ñi dañ fay dem caaxaan yi dañuy dem jaamu ji yàlla mu ànd ak nag bakkan gu dal parce que nag misérabilisme bokkul ak diine de yàlla dafa ne li baax lépp yéen laa ko defal jullit ñi li ma leen di mayit na ngeen ci dund dund gu teey gu àndul ak yàq waaye nag na ngeen ko wane famma famma bi ni'mati rabbika fa haddis la wa sol lu baax lekk lu baax dawal lu baax loolu julite ko moom bu ñu kenn gëmloo ni on doit être des jaamu yàlla mën na ànd ak nag bakkan gu teey yonent bi da daan taxaw di naafila guddi gi bokk na si doon ñaan mooy yàlla musal ma ci ñàkk parce que ñàkk nag àndul ak yenn yenn jaamu yalla yi de jaamu yàlla léeg-léeg am li Sall di wax def dara suñu pos day yombal jaamu yalla gi de loolu la religio. wax tourisme religieux mais comme ñoom yàq rek ak wax lu dul noonu idée boo ñu wër dem di ko essayé yàq donc capacité tourisme fi depuis tourisme culturel bi nga xam ne na commencer fii à Saint-Louis le patrimoine bi fi am depuis colonisation ba léegi ñu war koo réhabiliter nit jóge fune ñew xol les parcs qu'il y a ici ñaata parc mo fi am les parcs euh, ornithologiques juuj lañ ci gëna xam mais am na ak yenen gëmbal ak ñom sen muy tourisme euh, comment on appelle ça euh, biñuy def ci nature bi ak yenen ak yenen yo xamné nyomsen ko écotourisme ak ñom sen mën nañ ko développer améliorer ko muy aussi lu am solo ci revenu bi bi am bi ñëwaat fii ci pôle bi parce que tourisme nit ñi duñ ci bàyyi xel mais dans beaucoup de pays dañ ko considérer comme un produit d'exportation ndax touriste touristes yi ñëw di andi devise ku ñëw àndaale say euro ku ñëw àndaale say dollar loolu day dugal devise ci réew mi moo tax c'est extrêmement important mbokk yi mënoon naa continuer di développer di développer de développer ba fajar parce que potentiel bi am ci pôle bi motax bokk na ci pôle yu ëpp potentiel mais dañ ci génne touti rek té bañ aussi ngeen paresse parce que dama bëgg ngeen dem lire document bi dama bëgg document bi chacun d'entre vous qu'il se l'approprie def ko document bopam mën ko défendre boppam lii moo est-ce que di ngeen jox nit un pouvoir une partie du pouvoir parce que si nous un équilibre des pouvoirs wala nous une démocratie ñetti pouvoir la benn pouvoir bi moom teg leen ko pouvoir judiciaire du bu accéder par voie électorale du booy en tout cas pas au Sénégal nous na les procureurs dañuy dem ñu fal mais fi nous ñi dañuy def concours dem formation ñew ñu leen di affecté donc kooku pouvoir bobu bon woko ci mais ñaari pouvoir yo xamné politiquement lañ koy joxe Moy le pouvoir exécutif dans ses différents démembrements le pouvoir central et le pouvoir déconcentré Moy mairie Bobo boobu eggaguñ si buñ ci eggee 100 la am commencer par Ndargui, mais ak deuxième bi nga le pouvoir législatif dama bëgg sénégalais xamni contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux sénégalais pouvoir bi ëpp le pouvoir législatif ko xamné yow yaay loi yoy wax la wara doxé ci réew mi nationalité nak lañ ak l'impôt yow yaay voter le budget yow yaay voter le régime des peines des crimes et des délits kan ëpp ci réew yow am le ministre ou le directeur général ne ko pas entendre la ci ni nga gérer lii yow a président de la république pour a une trahison Il na a kan moo ëpp doole ci réew mi kon c'est l'une des élections les plus importantes c'est l'un des organes les plus importants dans un pays mais ce ci est le am solo c'est le volet contre pouvoir c'est le volet législatif mais il faut accompagner un président de la république et son gouvernement pour que ce ma qui faram fait yépp ñu nous faire, doxal ñu assemblée nationale parce que si ko a moom xam leen ni mbir mi buñ leen majorité dañuy dem bloquer l'Assemblée nationale Le président de la république mënatul tas l'Assemblée nationale y deux ans à il kon dina deux ans huit mois il n'aura pas gouverné le Sénégal est-ce que le sénégalais est nañ ko Motax kuñu fal biñ koy fal programme lañ ko fale ne ko dañu bëgg nga doxal mu len ah pour ma doxal nak il faut ma programme bi il faut ma aligner ko ci budget bi budget 2025 il faut ñu aligner ko ci programme bi li ñu bëgg def fi ci pôle bi il faut ñu mun ko ci budget bi kon jox len ma assemblée nationale présenté naa leen programme bo xamné amul siki sakani bi Sénégal di Sénégal ba légui programme musul léré ni ci fan lañu bëgg jëm ci vingt cinq ans yi di ñëw kon man japp na ni ne serait-ce que pour la démarche qui est une démarche inédite Sénégal dañu waron dañu wara jox nu mu tuuti 150 cent cinquante députés à l'Assemblée nationale parce que au-delà au-delà de l'aspect d'ordre majorité am na ci beneen affaire bu ci nekk mooy dafa am benn xétu classe politique bo xamné dañ leen wara sul définitivement politiquement parlant parce que liñu yak ci réew mi ñun biñu jël indépendance ño jiitu won Maroc bi ño jiitu won Tunisie biñu jël indépendance sen téléphone yi yu ci bari Samsung la.

Moi, que le peuple sénégalais ne soit pas avec nous ne soit pas derrière nous nous ñu nous woo ñëwuñu si xam et c'est pourquoi et c'est pourquoi fi may daanele dem len jëri carte yi continuer campagne bi maison par maison depuis élection locale mais surtout depuis élection législative mais d'ailleurs ça sax depuis présidentiel 2019 j'étais arrivé deuxième pour la première fois candidat Fi Andar. Ndar gagné fi ay bureau de vote Quand man suis ni Ndar yéen du ma 60 pour yen yi 80 la la Ndar 80 Ndar Ndar dafa wara bok ci ñi nga xamné gannaaw buñu jëlé sen ñaari député yi ngeen xamné mat député Ndar dafa war a bokk ci ñoo xam ne ñoom ñooy la liste nationale ba au moins sur les 34 députés qui